Charles gis naa bi élément bi di jàll tu étais euh, ci ci ci ni ni événement yi demee ak ni waxee ni mu dekkilaatee euh, coow loo xam ni ay woo xam ni foogoon nañ mu ngi woon ci tànku saafara. waaw euh, jërëjëf. Mm-hmm. commencer peut-être par m'incliner nous incliner devant la mémoire de yoo xamante ne ñoom ñoo daanu dans l'exercice de leur fonction. di ne bon kii seen famille ak suñu armée parce que c'est une armée boo mm-hmm. xamante tey. soxla na soutien euh, nation bi yëpp maanaam euh, muy état ga te état a ngi def ay jaloore bu baax a baax a baax en terme d' équipement ne serait-ce que pour sécuriser nos fonds suñuy frontières parce que boo xoolee tey lu euh, mu bindoo suñu zone sous-régionale maanaam Sahel ak lu xew tout autour de nous euh, Sénégal nga xamante ne ceinture boobu xaw na metti si moom euh, am na loo xamante ne état wax dëgg yàlla état mu ngi koy def si wàllu équipement day wan rek menace yoo xamante ne mu ngi peser suñu kaw muy si biir ak si biti c'est très réel et il faut peut-être ñu gën a gëstu loolu pour nga xamante ne tam gën a teg moyen parce que dañuy dem si situation moo xamante ne mun na am mu gën a graaw si jamono yi di ñëw. Euh, donc ce qu'il faut rek xam nga dafa am booy wax armée aussi dafa am loo xamante ne mën nga ko wax ak loo mënul wax. parce que mm-hmm. il y va d'une sécurité national mm-hmm. et euh, bu ñu demee ba ne dañu war a téye affaire bi dafa am ay négociations peut-être mais armée en général comme lu ñu koy waxee c'est la grande muette ce qu'il faut par contre mooy juste rassurer. Euh, maanaam les familles yoo xamante ne parce que ay famille la ñu yor seen seen waa kër ñii ay borom kër la ñu ñii ay doom la ñoo xamante ne si ñooñu lañ bokk mooy neuf yi beneen bi mooy population bi mais ñun ñëpp ñoo war a ànd euh, muy population nga muy politique ba société civile gën a dooleel suñu armée si question de soutien moral mu am leneen loo xamante ne c'est une question de soutien équipement ak financier te loolu wax dëgg yàlla euh, armée ba vraiment l'état du Sénégal est en de travailler dans ce sens maintenant boo xoolee bu baax a baax quoi affaire du coupe de bois bi c' purement économique mhm. c' purement économique day won lu bëri parce que ku xam casamence ku xam Casamance rapport bu mu am ak bant maanaam garab ga mooy le bois sacré du ko dagg noonu du ko dagu noonu parce que euh, chez che chez le chez Casamance muy joolaa nga muy muy képp koo xamante ne Casamance nga sa soow bëkk fa am fa loo xamante ne mooy sa cosaan doo laal bant ba noonu donc bu demee ba nga xamante ne tey euh, bant ba euh, tey du mooy lu ñu fa indi faw ko ñu surveiller bu baax a baax suñuy frontière ru mooy frontière suuf mooy frontière géej nu xool bu baax a baax a baax pour que effectivement nu mën a indi tam yeneen euh, réponse économique à mon sens si population yi ba pare xalaataat peut-être benn reconversion sociale euh, parce que tollu nañu waxtu parce que nous sommes plus si àdduna boo xamante ne nit ñi dañuy balkaniser wu pour créer des petits états amul benn sens tey ce sont les grands ensembles àdduna banqué woon même s'il y a des velléités par-ci par-là de de repli Euh, identitaire wala nationaliste quoi mais am na ay waxtaan yoo xamante ne xam naa moom dina dinañ ko si gën donc et puis il faut soutenir notre armée bañ a wax n'importe quoi parce que on doit quand même la la le mental des troupes mhm. waaw dañ ko war a xalaat bu baax a baax